revenir euh, à au, au cortège mais mais mais yéen tamit de l'instant qu'on dit euh, que le décret de convocation euh, du corps électoral et et et bu ñu yi. mais ce décret là waaw waaw d'accord mais bu ñu annuler élection yi reporté ko mais tamit. alors la la période de campagne elle est elle est elle éteinte aussi. alors mënu leen aussi di def comme si on était en campagne électorale di la libre circulation des personnes et des biens aussi. non mais c'est-à-dire xam nga aussi euh, ça malheureusement dañuy xëyee suba di wax di ko wax libre circulation des biens et des personnes dans l'espace démocratique la manifestation publique c'est espace démocratique la bokk xam nga kii ëpp lu muy euh, lu muy déranger euh, euh, libre circulation des personne et des biens c'est le président de la République est-ce que tu vas sa yu jógee Mermoz di dem di loolu c'est une prérogative présidentielle. ah oui c'est la euh, vérité euh, maintenant c'est la prérogative aussi des partis politiques rappelle-toi les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et ñoom ñooy animer le jeu politique c'est la constitution. d'accord qui le dit donc tu ne peux pas dire à des partis politiques que mënuñoo euh, dem dem yëngatu dañoo war a yëngatu d'ailleurs. xam nga non waxuñu doo leen boo ngeen dem louer espace wut autorisation mais yor seen cortège. Euh, plus de cinquante véhicules nit ñi topp ah euh, ni ni ni nit ñi war a circuler nit ñi war a dem ak ñëw te nekk ñu ci période de campagne loolu aussi loi bi daf ko war a réprimer je suis je suis pas je dis juste nous sommes dans une situation assez compliquée je veux dire maintenant lu ma doon c'est pas que je suis contre mais je dis on ne pas dire à des partis politiques de ne pas s'organiser waruñu wax parti kenn gis nga même quand des euh, niveau de Yewwi Askan a la constitution c'est un parti politique bu deful manifestation bu deful meeting c'est ce parti-là qui viole la constitution c'est parmi les charges des partis politiques animation vie publique bi vie politique bi aujourd'hui dans la constitution charge parti politique la parti politique bu nekk dafa war a def loolu loolu la ko constitution bi euh, sant sant aujourd'hui et l'espace démocratique espace animation la espace su yëngatu la espace su yëngal la espace su feeñ la espace su confrontation la euh, euh, d'ailleurs dañuy ñaan yàlla rek mooy effectivement mu doon loo xamante ne dañ koy def de façon civilisée maintenant boo nekkee ci am réew comme ça effectivement day am ay conséquences sur le vécu et sur le fonctionnement et le déploiement des, euh, des partis politiques. xam nga aujourd'hui là on est dans un total vide juridique total vide juridique parce que pourquoi parce que la seule chose buy permettre nga ne reporter nañu élection yi c'est que le conseil constitutionnel l'a dit il ne l'a même pas dit il a considéré que décret bi Macky Sall jël même bu fekkente ne décret bi baaxul décret bi dafa illégal décret bi nekkul dañ ko annulé il considère que de fait Macky Sall reporté na reporté na élection parce que simplement délai bi ñu amoon pour mën a def 21 jours de campagne ak benn bésu noppalu ak leneen mënatuñu ko mënatuñu ko am da ci conseil nañu dem leen maintenant ngeen seeti bés bu rafet pour ñu tenir ci euh, campagne mais aujourd'hui normalement on aurait dû être en campagne électorale aujourd'hui normalement tant que le décret là dindiwuñ ko bu bees bi le corps électoral reste convoqué au 25 février c'est ça en fait le problème moo tax d'ailleurs Macky Sall avait jusqu'à d'ailleurs demain na possibilité ba demain euh, les huit jours ou les six jours dans la Constitution buy suivre le rendu de la décision du Conseil constitutionnel il aurait pu saisir l'Assemblée nationale. Et peut-être que c'est pour ça qu'il parle demain. Peut-être maintenant, peut mais demain, ce sera trop juste... tard, je pense. D'ailleurs, ce sera trop tard. Il faut que je, regarde encore les délais pour demander une seconde lecture. Il aurait demander une seconde lecture pour réajuster waat euh, euh, date euh, rattraper en fait li nga xam ne moom la ko conseil wax ne si sa texte bi li nga def nii effectivement baaxul.